allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu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 julli ci yonentam bu tedd bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu wa azka taslima ñu ñaan ko moom yàlla mu mi yore jàmm ñu di ko ne anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayyinna bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam amin ya rabbal aalamiin yàlla ñu ngi lay ñaan jàmm yàlla nga ñu may jàmm ya nekk fa yow yàlla nga ñu jàmmal yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla boo ñuy faat na nekk ci jàmm yàlla bu ñuy dajeek yow na nekk ci jàmm waaye keroog bés penc yàlla nga ñu àtt si sa yërmande dugal ñu ci sa xëru këru xéwal ba nekk fa yow di këru jàmm ji te mooy àjjana mbokk yi lii nag yàlla dong lañ ko war a ñaan yàlla moo ñu ñaan leen ma ma may leen la doomu aadama di ñaan moroomam xam na ko ndax lan kay ñaan xam nga ne xel ne am na ko mën na ko bu la koy defal ak ko du defal xam nga ne mën na ko am na ko wala xam na ko waaye yii ñu wax nii nag loolu doomu aadama amu ci dara amu ci leen mënu ci dara tamit loolu man manu yàlla la am am yàllaa ko yore man man bi yàllaa ko yore xam-xam bi yàlla moo ko yore subhaanahu wa taala ba tax na moom la ñuy ñaan li ñu ñaan ni yal nañu ko bur yàlla boole nangul amin ya rabbal mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot wala gi ñuy ñaanal suñu mbokk ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu am jafeñ-jafeñ ci ndoxu taw ba wàcc yàlla daldi di ñu won ne ndoxu taw kat la tax ma di ko wàccee du lenn lu dul njëriñ ba ngeen si fàggoo waaye tamit ñu gis ne ndegem am na ñu siy fàggoo loraange loolu mooy la neex yàlla ndax yàlla bokk na ci màndarga yamu màndargay jëmmam mu ne faalun lima yurid muy moo mooy buur bay def lu ko soob waaw faalun mooy jëf lima yurid lépp lu mu namm def moo koy def waaw jëf boobu noonu nag amaana ci gisunu doomu aadama mën naa gis ne amaana lii la may lor la la la ci man waaye la allahu sa yajcalu baada usrin yusra amaana buur yàlla ci coobareem ak ci xam-xamam yu peeg lépp la doomu aadama nekke ginnaaw jafeñ-jafeñ ba mu la teg mu def ko mu doon lay doon la lay fiixal sa xol amaana yàlla pikir virus kenn ci borom barke yi dugal seen xol xolu yërmande xolu jàppale ña ci ndox wi ñu jaaree foofu am seen dëkkuwaayu bopp bi faw na yàlla def ci umaraaw yi ci njiit ñi ñu yàlla jiital ci kanamu askan wi ci njiitu àddina amaana yàlla pikiir leen virusu ñu taxawee askan bi tabaxal leen ay dikkuwaay yi nga xamante ne fa la ñuy jaaree ñu am seen dikkuwaay bi faw amaana amaana ndax loolu la ñu wax ci alquran asa an takrahu shay'an fa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibu shay'an fa huwa xayrun lakum waaw fa asa an takrahu shay'an fa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibu shay'an fa huwa sharrun lakum wallahu yaalamu antum la taalamuun buur yàlla ne ñu amaana ngeen bëgg lenn loolu du doon la baax ci yéen amaana ngeen bañ leen loolu ngeen bañ loolu mooy la gin ci yéen buur yàlla ne ñu man yàlla may ki xam way yéen nekku leen ki xam la ngeen nekkee kon bu dee ndoxu taw bi yàlla bu dee xam na la ci ginnaaw li mooy dëkkuwaay ba ñuy tabax jox leen ko kon nañ dëkk yàlla loxo ñaan ko boroom xol yu laab ñi boroom xol yu nooy yi ñu taxawee leen taxawaay bi mel waaw ñu bañ a jël ndoxu taw bi di ko sabote walla di ko di ko di ko ko dóoree ci kaw ñenn ñi waaw su ko defee ñuy tàllal loxo tamit autorité yi ak boroom barke yi ñu xettali ña loru ci ndox bi yal na leen yàlla may xol ba ñuy taxawee mbokk yu yàlla nattoo ñu am jafeñ-jafeñ jamono bu ndoxu taw bi wàcc waaye ndoxu taw bi objectif ba tax muy wàcc moom du pour lor kenn waaw waaw asallahu euh, an yajala baada usrin yusra amaana buur yàlla ginnaaw jafeñ-jafeñ mën na koo soppi def ko bànneex bi nga xamante ne fa la xol yi di fiix yal nañu ko yàlla defal ni amin ya rabbal alamin mbokk yi na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot ñu dellu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan yal nañu yàlla may kennaluk jàmm ñu bëgg a toftal suñu waxtaan ya weesu beneen bunt bu bees bi nga xamante ne bi léegi moo aju ci la yàlla ne yonent bi ne yónni bi ma la du lenn lu njëriñ dong ngir xeet ñi war si war a mën a xettaliku xeet wi war si war a mën a njëriñoo waaye mu doon yërmande ñeel mboolem bi ndaafoon yi sallallahu alayhi wa ma yàlla yónni mu ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bi du lenn lu dul nga doon yërmande ñeel mboolem bi ndaafoon yi yónente boobu sallallahu alayhi wa ci njàngalem yu matale ci waxam yu tedd yi kàddoom yu am solo yi nga xamante ne tegtal na ko lenn ci ñamu yar ci seen kepp ci keppaaraam di saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain waaye saxaabatul kiram ñoomit ñu am ñeneen ñu yar ay taabiuun yi taabiuun ay yar salafu saalih rahmatullahi alayhim ajmain yal yokk yërmande ñoom ñëpp su ko defee kenn si ñoom moo daal di baaxee askan wi xeet wi ay baat yi nga xamante ne njàngale alquran la tegtal la yenentu bi baaxe ci kàddoom yu tedd yi sallallahu alayhi wa moo tax bindkat bi ne yow jullit bi sa emploi de temps bu ko sàggane saway waxtu bu ko foowee say waxtu bu ko bàyyi muy dem ci mali foro waaw léegi nag mu jaar di la jox njëlbeenu waxtu wi nga xamante ne waxtu su néew ci ginnaaw ñu ngi ko doon joxe ci jàkk ji muy waxtuy fajar bindkat bi daal di la wax ñeenti béréb ci importance su fajar nga xamante ne bu fekkente ne woon waxuñu ko nii biñ ko xamee noonu ñaata yoon la fajar di jaar di jàll nga nekk ci sa biir mbàjj di nelaw nga nekk sa kawulal di nelaw nga nekk sa biir néeg di nelaw importance ba fajar bi am faale woo ko doye woo ko dara nga dund ba màgget ba xobi daas ba génn àddina allahu akbar importance ba fajar bi am mënoo si bénéficié wu benn allahu akbar kon nañ leen bokk déglu boroom xam-xam ba ñu yenkewal ba ñu tàggatal ki ñu andil bindi bu am solo ba nekk ci ñetti waxtuy fajar wala ñeenti waxtuy fajar fajar dafa am kat waxtu ñeenti waxtu yoo xamante ne lépp loo si ñoddi war nga si indi taaliqaat ay komanteer kon yow mi ñuy mel nopp ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi nañu bokk ànd ak yow ñu déglu lañu bindikat bi baaxee ci ñeenti waxtu ya nekk ci fajar importance ya ci am nañ leen bokk suubu diglu la bindikat bi wax ñu ñaan yàlla yal nañu ko yàlla jàppandal ñu war ko war a mën a faram comme ni mu nekkee amin ya rabbal alamin mbokk yi bindikat bi nee na faridatul fajar tajcaluka fi dimmatillah sunnatul fajar xayrun min addunya wa ma fiha qur'aanul fajar inna qur'aanal fajar kaana mashhuuda jamil huwa alfajar liman adrakahu allahu akbar mbokk yi bindikat bi nee na njëlbeenu waxtuy fajar mooy faridatul fajar farata julay fajar te jaaluka fi zimmatillah day tax nga dugg ci sécurité yàlla mu ne ñaareel bi mooy sunnatul fajar sunna fajar xayru min addunia wa fiha moo gën àddina ak li ci biir àddina ñetteel bi mu ne quraanul fajar jàng alquraan ci fajar mu ne inna quraanal fajar kaana mashhuuda yàlla nee na jàng alquraan ci waxtuy fajar dalay seede kerku bis penc mu ne jamilun xuwal ne lu rafet rekk bu dee jullit bi moom lay sàkku nee na lépp mu ngi tënku ci fajar waaye nag ku ko mun a njëriñu mooy man liman adrakahu ana ki koy fekke ana ku koy lamboo ana ku koy dund ana ku koy subir ana ku koy nekkee ah taar ba nekk ci fajar nag képp ku koy lamboo mooy ku koy dund nga xamante ne bu déggee noddukat bi ne assalaatu julli xayrun moo gën minan nawm nelaw bi ngeen nekkee mu daldi puus mbàjj bi wàcc ndànk ci kaw lal bi dem laablu jàkkarloog boromam këpp ko paaral dim wuyu la noddukat bi woote mu fekkee fajar ci biir jàkk ci allahu akbar kon waxtu su néew ci ginnaaw ña joxe waxtu woowu ñooñu la bindkat bi di wax ni ñu ñuy dund importance ba nekk ci fajar ba tax na ñu nit ñu bëgg leen andil taaliqaat ay commentaire yu ndaw ci ñetti béréb ba bindikat bi joxoñ ci importance su fajar mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot bindikat bi nee na faridatul fajar faratay fajar faridatul fajar faratay fajar li fa nekk mooy te tajaaluka fi dimmatillah dalay tax a dugg ci sécurité yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku julli fajar huwa fi dimmatillah képp ku julli fajar yàlla moo ne dugal naa la ci sama sécurité ka yàlla dugal ci sécurité am nag xawma dara lu lay dal waaw ki yàlla ne dugal naa la ci sama sécurité xawma lu lay dal commandant colonel chef de comme niñ koy waxee chef de sécurité yi ñu xam képp ku ñu aar kaaraange bu mat sëkk ngay nekkee te ñooñu kaaraange àddina lañu yor yoruñu kaaraange boo xamante ne leneen lu nit bu naree ñëw ci yow duñ ko xam ba ñu di ko gis kon ki am kaaraange total kaaraange bu mat bu dee kooku mooy yàlla te yonent bi ne képp ku julli fajar yàlla moo la assurer sa sécurité bés boobee kon ana xaar ci julli fajar ndigem julli fajar mooy tax nga bokk ci ñi yàlla garanti ne ñuy laa dugal sama sécurité ci bés bi kon léegi yow ana lan ngay xaar nginil bi foo ko mën a amee bu dee dugg ci sécurité yàlla dafa am lu ñuy fay walla dafa am lu ñuy nekkee ndaw coono ndaw coono dugg ci sécurité yàlla bu fekkente ne dafa am lu ñuy nekkee wala dafa am lu ñuy fay wala fa am lu ñuy joxe wallahi coono boobu kenn du ko mën a kenn du ko mën a dund ba nga di ko nekkee waaye ndegem dem jóg dem wuyu noddukat bi jamono bu mu naan julli moo gën nelaw bi ngeen nekkee asalaatu xayru mina nawm di mu wuyu loolu fa ñuy woote nga julli ñaari rakay fajar bu dee loolu mooy tax nga dugg ci sécurité yàlla yow mi di jullit ana looy xaar keneen ku yow amut lii kon na nga xam li nga yore mooy lan na nga xam diini bi ngay dund mooy lan dama ragal ak yoon wi kii nag agresseur yeeg yooyu seytaane moo koy dugal sa xol mu di la tiital mu di la ragal mu di la ragalloo mooy dugal ay tiitaange ay xeetu tappet ay xeetu euh, ragal ci sa xol moo ne bu fekkente ne béréb ba ñuy joxe liggéey la ñu ne la boo teelee ñëw dinañ la jël sa ngëri demi bu la fa fekkee dinañ la jël wala ñuy joxe loo xamante ne ay koppar lañu bu ñuy joxe koppar béréb boobee ñu ne la cinq heures trente bu la fi fekkee di nga am un million cinq cent mille bo bo <laughs> boobu moytuwul sa mer gàddu ngay gàddu dem fanaan béréb boobu de ndegem koom-koomu àddina moo la jaral nga war a teel a dem wala nga dem fanaan foofee mais lu tey lala yonentu bi ne képp ku fajar wa huwa fi zimmatillah kooku mu ngi nekk ci keru keppaaru sécurité yàlla moo tax bindkat bi ne faridatul fajar faridatul fajar faratay fajar tajaaluka fi dimmatillah day tax nga dugg ci nga bokk ci ñi yàlla garanti sécurité bés boobu ñaareel bi mu ne ñu sunnatul fajar sunnay fajar nag xayrun min ad-dunya wa ma fiha moo gën àddina ak li ci biiram waaw bu fekkente ne dañ la doon liggéeyloo ñu ne la defal fi loo xamante ne moo war a gën àddina ak li ci biir àddina loolu ngay def mooy lan noo koy defee kañ nga koy def koy bokk bokkal defandoor ak kooku loole danga ko dul xam sax bi di ko jëf waaye xoolal luñ la joxe jëf ju tënku jëf ju neex a jëf ñu ne la sunnay fajar moo gën àddina ak ci biiram àddina biiram àddina ak li ci biiram ñu ne la sunnay fajar moo gën àddina ak li ci biiram yow boo julee fajar boo julee sunnay fajar jëf nga la génn àddina ak li ci biir àddina yow ana moo la gën a ëpp jëf mbokk yi lii duñu ay léeb lii duñu ay cax lii duñu ay istorik bi ñu leen di nettalil lii ki ko wax mooy ki yàlla garanti doom sallallahu alayhi wa mbokk yi ngëneel bu ndaw waaw jëf ju ndaw nga am ngëneel bu bari xëytu yonentu yàlla Muhammad la ko yàlla jagleel sallallahu alayhi wa sallam jëf ju tuuti nga am génneel boo xamante ne ëllëg bis buñ te la ko fayee danga naan c'est pas possible sallallahu alayhi wa ñun mi am sens yàlla boole ñu ci xeetam sallallahu alayhi wa ñun la yàlla jagleel jëf ju tuuti mu faye la lu ëpp sa njort multiplier la ko xoolal ñu ne la sunnay fajar moo gën àddina ak li ci biir bu ne àddina nag mel ni man day defee ne béréb bi ngay dund rek mooy àddina allahu akbar loolu gàtt gis-gis la comme boo sànnee sa bët ci ji doo xam fa àddina fa asamaan si tàmbale doo xam fi mu yem xamal ne asamaan si lépp lu mu tiim mooy àddina ad duniya mooy àddina ñu ne la ñaari rakkay sunnay fajar moo gën àddina ak li ci biir àddina allahu akbar bokk yi ana looy xaar ngir joxe sunnay fajar ana xaar ba nar a joxe sunnay fajar kàddu gi bu jibee mag yi nag ñi ñuy déglu ñépp war a bàbbeeku dem xool sunnay fajar nga dikkee di ko jëfee nga dikkee di ko julli keroog bés pénc yàlla fay la yiw joo xamante ne waaw yàlla lii numa ko amee nu ma ko defee ñu ne la nga doon teewee fajar ci jàkka ja bi nga déggee noddukat bi ne assalaatu xayrun min annawm assalaatu xayrun min annawm allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah nga daldi jóg daldi buule mbàjj bu dee yow jeune bu dee góor gu xaw a jëm mag tuuti mu daldi korkoral ndeysaan rahimahumullah yal na leen doole kattan jokk leen yërmande daal di géem a dox ndànk dem beesal daal di ubbi buntu kër gi ndànk waaw jamonoy seddaay kóor gi daal di fugg buntu ñama ay jeune waaw bu ay kër yu am pas allemand ñooñ ñuy buuli ni buntu néeg bi ak seeni tànk bëm bëm di di di yee jeunesse yi ngir ngir ñu manqué yiw ba nekk ci fajar na góor gi xam na njëriñ ba nekk ci fajar moom dund na ko xam na njëriñ ñi fa ne yow mi di jeune nga nekk ci kër gi tànqal nit ñi njëriñ bi la yàlla xam ñoo doy loolu rek ah lu ñu togg nga lekk lu ñu teg nga jëfandikoo ko ànd ak loolu paa bi nar laa yéene yiw ba nekk ci fajar bi bu yee da ci am jafeñ-jafeñ est-ce que jar na ko allahu akbar suñu góor ñu baax ñi yàlla ñu yàlla fayal ñu jiitu barzak yàlla na yàlla yërëm ña fi desandi yàlla na yàlla yàggal suñu kanam ñu ji ñu di yee ñey sàggane julli fajar ñu ne la julli ñaari rakkay fajar sunna moo gën àddina ak li ci biiram buñ la ko doon jëfloo noo koy jëfe dama ne doo ko dul xam ba di ko jëf kon noddukat bi bu wàccee baat bi rek en tant que jeune paa bi dafa war a dégg ci digg ëtt bi ne kii di jàppade sama waa ji la waaw kañ nii lañuy ñuy déggee wax ci ah yow bu dee sama sër nga bu dee julli baa ngi disponibul ci sa mbir yow it gémma la góor-góorlu nga këpp këpparal ñaari rakkay sunnay fajar ci sa néeg nga toog cinq minit daal di jóg taxawal li xaam nga daal di julli sa faratay suba su ko defee nga nekk ci sécurité yàlla waaye nga manqué yiw bu toll ni yaa fi def la gën àddina ak li ci biiram allahu akbar ngëneel bi action bu ndaw rekk nga am ngëneel bu toll ne lii la ñu yàlla wërsëgal ñun xeetu sayidina muhammad sallallahu wa sallam jëf ju ndaw ñu manqué fa yiw ju kenn dut mën a lim yal nañu yàlla fiyal suñu yonent bi sallallahu waaye càggante dab kenn ci nit ñi nga dund bi jeexal dund bi waxtu yi fajar di ñëw di jaar di jàll munoo fexe ba bénéficié wu benn waxtuy fajar loolu musiba gën ko ëpp allahu akbar kon yow da ñëw àddina fi pour nekkandoor ak nit ñi nii rek comme sax léegi nag sa àpp jeex na dellu nga allahu akbar oh. te am na ñuy dundee nii de am na ñuy dundee nii yan nañu yàlla may dégg toog allahu akbar nekk ci sa bànneexu bakken rek waaw bu nit ñi di jóg dem julli fajar yow yaa ngi jógee ko fa nga nekk say tànk yi di taraf nga ne yi yaay yaay nandite yow moment boobu ngay dem tidd ñii di dem manqué yiw ci béréb bu manqukaay yiw yow nga jógee ko fa nga manqué bàkkaar fa nga manqué lu ñaaw wara a xañ sa bopp yiw boobu yaa ngi nii di dem tiddi doo yow bi onze heures yal na yàlla sopp xol ñi nekkee anam wi mbokk yi ñetteele buntu bi bindikat bi neena na quraan al fajar inna quraan al fajar mashhuuda nee na la ci gën a neexaati mooy njàngum al ci waxtuy fajar moo xam bi nga déglu la ci ginnaaw imaam bi ci jamono ba imaam bi di julli ñaari rakay suba moo xam ba nga jàng balaa ñuy julli fajar la moo xam ba nga jàng gannaaw bu ñu jullee fajar ba noppi en tout yooyu képp ku jëfandikoo alquran moo xam ba nga teewlu la ci ginnaaw imam yonent bi nee na fajar dalay seede keroog bés pénc ndax aaya ba ngi ci sotul isra yàlla ne na wa quraan alfajr inna quraan alfajr kaana mashhuuda ak alquraan ba ñuy jàng ci jamonoy fajar def naa ko mu doon lay seede ki teewee fañ koy jànge waaye yow mi koy jàng bala ñuy julli fajar yàlla ne def naa alquraan mu doon la lay seede keroog bés pénc waaye yow mi koy jàng gannaaw bu ñu jullee fajar bi noppi yàlla ne def naa ko mu doon la lay seede keroog bés penc kon ñetti béréb yi nga xamante ne nit ki mënees na see jëfandikoo alquran nang ko exploité na nga taxaw ci ginnaaw imaam imaam jàngal la fatiha be wala doolliin nga ne leneen lum ci teg alquran la loolu ngay déglu ci ginnaaw imaam jamono bu mu jiitee di julli alquran boobu nga déglu ci ginnaaw imaam buri yàlla ne def naa ko mu doon la lay seede yow mi teewee fuñ koy jànge yow mi koy jàng tamit yàlla nee na def naa ko mu doon seede balay seede keroog bés peñ waaye yow mi dem jàkka ja ngir julli fajar laata ñuy liqaam alquran ba nga jël ci tiroir bi alquran bi nga jël ci bibliothèque bi nga téye ko di si nab nabi ba keroog ñuy liqaam loolu nga doon nab nabi ci alquraan bi yàlla neena na def naa ko mu doon lalay seede keroog bés penc waaye yow mi jóge ko ci jàkka ji ñëw toog sa néeg walla sa couloir wala sa balkon wala sa kaw terrasse ubbi sa alquraan nga di ko jàng di ci nab nabi loolu nga ci nab-nabi ba keroog jant bi di fenk yàlla ne def naa ko mu doon la seede keroog bés penc waaye yow sama sœur yow mi jël alquran teg ci sa komot yow mi jël alquran teg ko ci sa bopp lal bi nga di ko njegenaayoo jamono bi nga yeewoo ci fajar laata ngay julli ñaari rakay fajar yow mi ko doon nab nabi waaye yow mi doon jàng alqur'an jamono bi ngay julli fajar waaye yow sama séer bi doon jàng alqur'an keroog bi nga jullee ba noppi nga toog sa kawlal moo xam sa sijaada bi nga doon julli nga toog fa ak sa melokaan bu jekk bi macha allah nga ubbi sa téere alqur'an di jàng maa tayassara min alqur'an yàlla nee na loolu nga jàng avant pendant et après moo xam yow sama frère moo xam yow sama sœur nga loolu nga jàng avant pendant et après avant fajar pendant bi nga nekkee si di julli et après bi nga julli ba pare quran bi nga jàng moment ñetti moment yi yàlla ne def naa ko mu doon la lay seede keroog bés penc mbokk yi bu fekkente ne amuloo kenn ka lay seede bés penc lenn nekku fi lu seede bés penc yàlla ne jumtuwaay baa ngi nii dina la seede dina la plaidel dina doon avoka keroog bés pénc yonent bi salaa salaam wax na ñu ne iqra'ul qur'an de leen jàng alqur'an mel ni am na ñu laaj yonent bi mais lu ñu jàng alqur'an salaa salaam ne ñu fa innahu naka moom alqur'an yaati dina dikki yowmal qiyaama keroog bés pénc mu doon kay seede kay ràmm li ashaabihi ki safoo ki waayo waayoo yàlla ñu yàlla boole ci ahlul quran alladina hum ahlullahi wa xasatuhu ñoo xamante ne ñooy waayu yàlla ñoom la yàlla waayo ñoom la yàlla njaboote te ñoom la yàlla jagleel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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu